asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen mbokku jullit yi maa ngi leen di gërëm di leen santit ci ndaje bi nga xamee ne moom lañu daje fii ki nga xamee ne tey ji dëddu na àdduna e jullit yi jooy nañ ko mbokk jullit la mbokku e, sëriñ la waxuma la sax euh, maanaam doom ja doom ja moom kese kese moomul Sidi Lamine Niass siidi pour waa Sénégal la pour adduna bi la siidi liggéeyal na Sénégal loo xam ne tey jii vraiment du mus a suulu Sidi jëmm jee dem waaye liggéey gaa ngi des fii ñoo ngi ñaani yàlla nag foofee mu dem yal na ko yàlla xaare àjjana waaye ne li fi am tey jii eh, bokki jullit yi war nañoo xoolaat suñu biir xam ne do dogal bu amee ñëpp ko war a nangu waaye nag bokk dafa am e doom dafa am man de e, nii ñu ko doxalee tey ji doonu loo xam ne lu mu gënal la bëgg naa xam ne tey ji ñépp xam ne li ñu daje fii tey ji du caaxaan barki dem ba léegi ñoo ngi taxaw fii kon nag bu fekkoon ne Sidi defaloon na nit ñi loo xam ne baaxut kon kenn du ko taxawoon nii te bëgg naa nag mbokk yi nga ñoo ko seq ak doom ya nañu waxtaan ba juboo nekk benn ñu jël ko man ko yóbbu fa nga xamee ne foofu la ay waajuram nekk Dakar ji kenn ku nekk xam ne dox daje la waaye nag kenn ku nekk am na loo gëm kenn ku nekk am na loo xamante ji mooy li nga xamee ne mooy sa ambition ambition doom te nag mun ñu koo weddi waaye na fàttali ne moom kese du taaw taaw baa ngi fi mbokk yaa ngi fi ñun de ci suñu gox maanaam doom bala moo wax il faut bokk baayam yi taxaw bu fekkee ne bokk baayam yi taxawut ñu ne dëkkandoo yi nañu taxaw dëkko yi muñ ci mënul wax ñu ne bu ñu taxawee ñu ne ko yow doom ji yaa fi ni kon say bokk baay néewuñu fi waxal li nga xamee ne moom la ñuy def. salaamaaleykum wa rahmatullahi sëriñ Gora Ka Touba Sicap Mbao mooy nuyoo bu baax tey ziyaare tey ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal jullit ñëpp yàlla suñu borom wàcce yërmande ci seen kaw di ziyaare jëmm ju baax ji fi jógee muy alaaji Sidi Lamine Niass di directeur PDG bu Walfadjri di chef d' entreprise di jëmm ju baax yàlla sama borom dogal tey mu tëdd fii nii ci mag ci margo bi ñuy ñaan yàlla jëfam ju baax yàlla na ko gunge te suñ borom teeru ko te yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe ñun nag ñoo ngi ñaawlu ci benn côté maanaam li nga xamante ne sii moom moo fi xew tey jëmm ji nga xamante ne sii moom lañ jël jiital ko ci ay doomam ñu naan ko Serigne Cheikh Niass mën nañ ni la plupart ñu ëpp ci julli ñi àndu ñoo moom parce que tamit dafa am loo xamante ne si moom la suñu borom wax ci alxuraan te li yàlla wax ci alxuraan dañ koy appliqué muy sama amaatuhu fa akbaruhu bu doomu aadama wàcc yëpp liggéey ci nu mu gën a gaawee rek nañ ma ko jébbal kon waruñu koo téye lu man ñetti fon ñuy discuter te nag ñun décision bi mu bëgg nii ñun ànduñu ceeg moom te jullit ñu bëri ànduñu ceeg moom ndax kenn ku nekk dafa am foo féete décision bi mu féete mooy jël ko yóbbu ko ci almeeri yoof yi denc ko fi loolu jullit ñi ànduñu ci parce que almeeri yoof nit ñu baax a fa tëdd kenn ku nekk dafa am fu la suñu féetale te moom kenn ku nekk xam na ni ci waa leew na ci la bokk fala ay maamam kenn ku ne xam na ci waa lew na la bokk ay maamam doon nit ñoo xamante ne si dañoo làq ngërëmal suñu borom moom mu yor ay taalibeem ay nit yaakaar leen kon ku toll ni Sidy bu fi jógee tey ji dañ a yóbbu ba biir lew ko fa jullee ko ca jumaay baayam ja denc ko ca ay maamam bu ëllëgee bu gàmmu jotee wala bis xew ay taalibeem bu ñu fa duggee mën di ko ziar di ko ñaanal ñun daal lii mooy sunu gis-gis gis-gis bi mooy nañ ko yóbbu Kaolack fa ay maamam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma ixfir lahum warhamhum inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man Alioune Ndiaye maa ngi maa ngi leen di nuyu di leen jaare di leen jaale Sidi Lamine Niass mii nga xamante ni tey ji moom moo génn àddina ñu war koo denc denc bi xaw a am tuuti uute ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a jël ay dogal ngir denc ko waaye daal li nga xamante ni moom la yàlla dogal moom mooy Sidi Lamine Niass nit ku baax la waa Sénégal ak waa àddina bi yëpp mën nañ ko seede képp kuy jullit war nga ko mën a seede ci loolu Sidi Lamine Niass ku baax la bu ñu woon nit dina romb baax sax dañ naan Sidi Lamine romb na baax ndax Sidi Lamine lépp loo xamante ni nit ñi waroon na leen Sidi Lamine daan na ci taxaw ba daan ci taxawaaleel ñëpp daan nañ ko séentu daan nañ ko gis ci gàmmu Hady Niass nit ñi war a joxe addiya mu ne bu kenn joxe yéen ñëpp dinaa leen joxe waaleel kon boog Sidi Lamine dafa taxaw taxawaaleel ñëpp lii nga xamante ni nag moom moom euh, moom lañ ko desal tey jii moom mooy jébbal ko boromam ndax yàlla génn ndax yàlla jël na ruuxam yàllaa ko bind indi ko fii ci àddina bàyyi ko fi ba mu mën fee liggéey liggéey bu rëy bii mu fi liggéey nii yàllaa ko fi jële kon boog dara desatul lu dul ñu jébbal ko boromam coow li nag jaru ko nit ku nekk danga am loo moom am loo bokk ak nit ñi am loo moomul loo bokk nit ñi da nga ciy am cër loo moomul bàyyi ko ak ña ko moom ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dogal mooy kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy ay kilifaam ñoom ñoo war a dogal lépp lu mu dogal xale yi nga xamante ni ñoom la fi siidi bàyyi ngir yàlla ak yonent bi bu ñu ci jéem a opposé wu dara dëgg la ñoom la siidi jur waaye nag siidi Lamine moom ci boppam dafa am ay kilifa ndax daan na fi am ay tolof tolof te ay kilifaam ñoo daan taxaw wax ba tolof tolof yooyu Sidi Lamine Niass génn ci ñun ay seede lañ ci falilaahi alhamdu yàlla na ko yàlla tertoo aljana tertoo ko yërmandeem dugal ko yéegal ko ci aljana yu kawe ya alhamdulilah yàlla nañu yàlla jéggal yàlla na fi yàlla bàyyi njabootam gi yàlla may leen ñu taxawu ko ginnaawam taxawaay ba gën a rafet Euh, ngeen baal ma ak loolu rek laa amoon ci lu ma ci sànni man Alioune Ndiaye maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm de euh,